mi ngi noonu nee naa leen bis bi benn la tubaarkàl la bis bi benn kepp la muy fukki fan ak benn maanaam la onze incha allahu rabbi kan moo xew la ndaanaan bu mag bi l'international ki nga xam ne bii ne réew mi dañ koo bëgg la muy def naturel lool la muy def baax lool la muy def neex lool mu teg ko ci temps ak heure nag saagawul waxul lu bon kooku kenn la ci artistes yi tubaarkàl la gën lool eh borom Cees <laughs> kaaw <laughs> kookoy kaaw nee la ndaanaan nga barke yonent bi ndaanaan nga ñaari yoon waaw waaw baax nga yiw nga bëgg nga lu baax te ba pare mën nga li ngay def le onze waaw Thiès prestige tubaarkàlla muy bis bu mag boo xam ne bii ne nun ñëpp dañ fay teew def ba mu baax ndax nee naa la nag nun bu suñu nawle xewlee daa cam <laughs> dañuy def ba mu baax dem fekk teewle ji ko ba waa Thiès xam ni kat kii nitu nit ñi la kaaw le onze incha allahu rabbi nee naa ku bëgg a xam la fay xew da ngay teel a ñëw fexeel ba huit heures fekk la fa bu soobee yàlla ndaanaan yëpp artiste yëpp daan fa daje waaw ah, ndax nag kaawa xew la <laughs> te kaawa <laughs> du ndaw eh, <laughs> bisam du ndaw bala onze incha allahu rabbi dina neex de